fii amul benn hôpital bu lay muñal fukki weer boo feebaree pour nga fay kon suñu mbokk ñuy dund mbokk feeraay yi ñi ci bëri nekk ci ay jigéen lu ñuy dund du dëgg du yoon ku ko waxul waxoo dëgg dama ne noot liggéeykat muy dox dafa war a jeex fan yële paase dégg nañ coow bu jib ci baat bu ñuy wax toog muy dox waaye fii noot muy dox la noot muy dox ci boppam noot liggéeykat muy dox moo war a jeex liggéeyloo doomu jàmbur weer dee fayoo ko moo war a jeex ñu naan benn weer ñu naan déet nga teg ci ñaar ñu naan déet nga teg ci juróom ba fukki weer boobu ana état du Sénégal boobu ana gouvernement du Sénégal fera dix mois d'arriérés de salaire université numérique Cheikh du Kane ñett ñeenti weer yoo xam ne ñoom itam père mère soutien de famille jotuñu seen payoor waaye itam waa ANPEJ ñoom itam conseiller en emploi ANPEJ toog ñoom itam ñetti weer kenn fayu leen seen payoor ñoom itam ñuy père mère soutien de famille waaw ouais, mais euh, conseiller en emploi yow yaa war yow yaa war a xelal ndaw yi ngir ñu am liggéey ngir ñu créer emploi yow ndekete yow mii sa emploi sax jagul yow sa emploi dafa néew doole yow yaa ngi ci situation bu précaire mais ban crédibilité yow conseiller en emploi bu ANPEJ yow mi nga xam ne yaa ngi toog ñetti weer ñeenti weer kenn fayu la ban crédibilité nga am pour wax ak yeneen ndaw pour ñu am ay emploi yu dëgër këng bu dee yow da nga nekk ci précarité boo ci laal nga ne bii moo gën a métti ñun duñu xeebal kenn li nga xam ne moo ko dal boo ci laal nga ne bii moo gën a métti waa AGS juróom benn at nga nekk ci journalier gars yi amul tontu téléphone fii de ku bëgg a tontu téléphone na nga génn tontu téléphone mun na xaar dix mois sans salaire moo mënul xaar tontu téléphone mun na xaar waaye quatre mois trois mois sans salaire moo mënul xaar ñu nekk ay journalier waa AGS juróom benn at journalier deux mille dix huit mu ngi amoon junni ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett fukk ak ñeent bés bu nekk ci camion yu doon dugg biir port mu amoon bés yoo xam ne deux mille dix huit amoon bés yoo xam ne da doon dem ba ñaari téeméer ak ak ñett euh, ñaari junni ak ñetti téeméer camion maanaam deux mille trois cent camion 1874 euh, camions par jour avec des pics de 2300 camions par jour yuy dugg port effectivement muy créer ay embouteillage ñu ne loolu dañ koy gérer ñu taxawal AGS AGS jël ay liggéeykat 1874 camions est-ce que foog ngeen ne yoon la ñu dénk ko ay journalier ñu ne bés bu nekk 1874 camions loolu kay permanent la ndaxte am na ay chiffres am na chiffre 2018 am na chiffre 2017 am na chiffre 2016 am na chiffre 2015 xam nañ ne gën saa néew port nangamu camion moo fay dugg kon yow soxla woo journalier ay permanent nga soxla waaye rongoñu baadoole di cimetière buur rek ngay jël ay journalier parce que bëggoo leen fay da leen da leen bëgg xañ da leen soxore payooru permanent da nga leen soxore bëgg bëgg leen xañ d'accord ay cotisation IPRES ngir ëllëg bu ñu nekkee mag jël jël retraite ñu am seen pension dañ leen soxoree bëgg leen xañ li nga xam ne mooy seen IPM maanaam bu ñu fajoo ñu dem faju ji ci njëg bu yomb ndax lan pour yow nga siim sa cere dama ne noot liggéeykat muy dox moo war a jeex da di siim sa cere ak payooru liggéeykatu feera ak payooru surveillant wu université numérique Cheikh Hamidou Kane ak payooru ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, conseiller en emploi ANPEJ waaye ak rongañu waa AGS moo war a jeex moo tax biñ leen recevoir fan yële passé defe naa semaine passée la ay bés bii romb man en tant que représentant du peuple sénégalais bind naa gouvernement bu Sénégal ndaxte loolu bokk na ci sama liggéey donc defe naa yéen ñëpp jox naa leen bataaxal bi nga xam ne bind naa ko ministre bi nga xam ne moo yore seen wàll muy waa ANPEJ muy waa université numérique Cheikh Hamidou Kane muy waa FERA muy itam waa AGS ku ci nekk saisir naa jëwriñ bi nga xam ne moo yore sa dossier ci gouvernement bi ndaxte sama liggéey mooy def loolu waaye bu ñu waxee dix mois quatre mois trois mois d'arriérés de salaire daf ñuy fàttali fan la ñu jóge daf ñuy fàttali fan la ñu bàyyeekoo avant vingt quatre mars deux mille vingt quatre loolu la ñuy fàttali te fàttali bi dafa am solo fàttali bi dafa am solo lu tax mu am solo day tax man mii député ma xam ne ah fii la ñu jógee fii la ñu bàyyeekoo kon yow Guy mari Sagna li nga doon daw na nga ko yokk ngir noot liggéeykat muy toog di mois trois mois 4 mois amul payoor ngir mu jeex ngir noot liggéeykat juróom benn at mu nekk journalier nga bugg a génn ci journalier boobu ñu ne la sax yow da ngay def contrat à l'essai juróom benn at nga def juróom benn at ci benn place nga am expérience juróom benn at ñu ne dañ lay jox contrat à ñetti weer mais de qui est-ce mais lii ñoom am nañ droit am nañ sañ-sañ te dëgg la ñu lànk ba tëdd ci suuf ne ñun kenn duñu jël essai un ñu nekk journalier deux ñu naan déet nga yóbbu ñu intérim maanaam comme commencé nga gis liggéeykat yi di fippu nga ne léegi xam ngeen lan la ma nekkatuma seen patron dama leen di yekkale beneen entreprise kooku ngeen di waxal man kooku laay fay kooku di leen di fay mais yow li nga nar a fay beneen entreprise ngir moom mu tekk ci soog a fay liggéeykat yi doo jël lépp fay ko liggéeykat yi mais mbokk yi nañu xoolaat mais yow néeg nga soxor nga noot am nga xelu nooteel bu toll ci pare nga pour fay benn entreprise ngir mu fay ñeneen mais booleel ñaar yépp nga fay ko liggéeykat yii loolu mooy yoon ñoom ñu wax loolu nga ne da nga leen di dàq ndax lan dañoo ñëw seet si Guy Marius Sagna fii laa koy waxee cow cow bi mu ngi soog a commencé waa AGS laay waxal waa AGS laay waxal lii ñu def defuñu ko ñaari liggéeykat yi nga xam ne ñoom lañu ñu lii ñu def assemblée nationale lañ ko def ndaxte député dañ ko fal fi ñu ko war a falee du bandi du criminel lan moo war a tax nit ci war a nëbbatu pour gis seen député mais bu fekkee loolu la nañ tas assemblée nationale nañu ne député amatul mais à partir du moment où assemblée nationale am na muy deuxième institution député am mais kuñ fi dàq ndax danga seeti député mais c'est une offense à la République du Sénégal c'est une atteinte grave une menace grave aux institutions de la République ndaxte kat ñëw seet ci député ci jàmm ak salaam mu déglu la ci jàmm ak salaam bind si jàmm ak salaam mu dellu wax ak gouvernement si jàmm ak salaam gouvernement saafara ko si jàmm ak salaam loolu moo gën liggéeykat yi di baare tali di taal ay na et donc liggéeykatu AGS yi nga xam ne dàq nañ leen buñ leen jëlaatul AGS bu leen jëlaatul fan yii di ñëw dinañ marche wala dinañ sitting buntu buntu buntu AGS te dinañ wax poor bu Ndakaaru dinañ wax gouvernement bu Sénégal segam AGS mooy dàq liggéeykat yi ndax rek noot bi nga xam ne ñu ngi leen di noot te du dëgg du yoon ñu xoolaat ñoom seen contrat ndaxte ñoom contrat rek moo dox diggante ñoom AGS ak port du Sénégal te état du Sénégal du signanteeg AGS ay contrat pour muy noot ay doomam doomam yi di yuuxu mu leen di dàq ma ne conférence de presse bi daf ñuy fàttali ñun fu ñu jógee baax na député yu mel ni man ñu fàttali leen ne fii la ñu jóge lii moo fi nekkoon avant 24 mars 2024 yow député Guy Marius Sagna yéen député yéen ñëpp na ngeen gën a góorgóorlu pour saafara lii nu mu gën a gaawee. waaye itam daf koy fàttali ñi nga xam ne ñoo nekk gouvernement bu Sénégal muy ministre yu bees tàkk yoo xam ne seen passation de service ñu ngi ko def semaine bii passée xam nga kon bu ñu waxee di mois d'arriérés de salaire. waa FERA ñoom ñoo la gën a xam ne dix mois yooyu ba du ci Bassirou Diomaye Diakhar Faye du ci maanaam premier ministre Ousmane Sonko waa université numérique Cheikh Hamidou Kane ak waa ANPEJ ñoo leen gën a xam ne ñetti weer ñeenti weer yu ñu leen ameel du ci du ci président Bassirou Diomaye jaaxaar Faye wala premier ministre Ousmane Sonko waaye daf ñuy fàttali li nga xam ne moo ñu fal. moo tax du ma noppee ñaan ñii ñu fal 24 mars 2024 te man ma bokk ci yàlla na bu ñu fàtte li leen fal te li leen fal mooy coono yii li leen fal mooy jafe-jafe yii li ñu fal mooy nooteel gii te mu war fi jóge léegi nag comme ni ma ko waxee jébbal naa seeni dossier gouvernement bi officiellement ci ay questions écrites gëm naa ne dina saafaraw ci nu mu gën a gaawee dinañ ko topp ci nu mu gën a gaawee yéen itam seen taxawaay noonu la ndaxte ginnaaw 24 mars 2024 gouvernement bi dafa war a xeex waa assemblée nationale xeex xeex ngir saafara seeni jafe-jafe waaye yéen yéen itam bu leen toog dem tëddi nelaw na ngeen ñuy fàttali di ñu fàttali di ñu fàttali yàlla bu fàttali boobu yàgg benn ñaareel bi ñu jël ay dogal. ngir dix mois d'arriéré de salaire feera bu mu amati trois mois quatre mois bu ñu ko saafaree ba ba noppi plus jamais saa bu mu amati muy ANPEJ muy université numérique Cheikh Hamidou Kane waaye itam état du Sénégal ñun assemblée nationale ñun gouvernement du Sénégal war nañ gëstuwaat contrat de prestataire yi bëri na de te état moo koy def mu mel ni patron yi nga xam ne ñoo moom seen entreprise bu ñu buggee noot seen liggéeykat ñu ne journalier wala intérim waaye état bu buggee noot liggéeykat bañ ko fay payoor bu mat mu ne ko prestataire xam ngeen état moom amul journalier waaw mu ne prestataire du leneen lu dul rong ñu baadoola muy sim cere buur fekk ne boobu assemblée nationale mu ngi joxe cent mille francs suukaru koor ay député xam naa ne am na ñum dul neex waaye fii laa koy waxaatee cent mille francs suukaru koor député dix députés ça fait un million 160 députés ça fait ñaata 16 million am déet mais 16 millions 16 millions lu mu mun faj nga multiplier ko par cinq te loolu mooy lu gën a tuuti nga boole ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci assemblée nationale nee na moo lànk kenn du ko contrôler waxuma téléphone yeeg waxuma carburant yeeg waxuma billet màkk yeeg billet rom yi député yi mën nañ góor góorlu ak seen payoor. jëndal seen bopp suukaru koor mën nañ góor góorgóorlu ak seen payoor demal seen bopp màkk demal seen bopp fi nga xam ne mooy rom rawatina jamono joo xam ne d'accord ñu ngi naan dix mois d'arriérés de salaire tey jii nii assemblée nationale dafa waroon réunion ne léegi ginnaaw 24 mars askanu Sénégal dafa ne damay xool yoon bu bees ànd ak Bassirou Diomaye Diakhar fay ak Ousmane Sonko ñun assemblée nationale naka la ñuy def pour un recenser jafe-jafe yi. pour deux ñu gëstu ci jafe-jafe yi proposer ay solution jox ko gouvernement indi ko assemblée nationale loolu mooy liggéeyu assemblée nationale waaye jamono jooju askan baa ngi torox askan baa ngi sonn gouvernement baa ngi soog a toog mu ngi xool dossiers yi bëri na les attentes sont immenses yow assemblée nationale ngay joxe suukaru koor cent mille francs yow assemblée nationale ngay naan waaw am naa sañ-sañ joxe motion de censure mais ñun motion de censure bu yitteel askan wi du motion de censure contre le premier ministre Ousmane Sonko motion de censure bu yitteel askan wi mooy motion de censure contre les dix mois d'arriérés de salaire des travailleurs du FERA motion de censure contre les quatre mois d'arriérés de salaire des travailleurs de l'ANPEJ motion de censure contre les trois mois d'arriérés de salaire des travailleurs de l'université numérique Euh, Cheikh Hamidou Kane motion de censure contre les licenciements arbitraires et injustes des entreprises comme AGS ñun lii moo ñu yitteel nañu xalaat ci lii nañu débat ci lii et non débat ci motion de censure premier ministre boo xam ne ñu ngi ko soog a fal amagul sax ñaari weer amagul sax ñaari semaine donc di ñaax kon gouvernement bi lu ñu daw xeeb nañ ko xam nañ ne métti na waaye lu ngeen daw xeeb nañ ko lii ñuy sàkku mooy liggéeykatu feeraay yi balaay tabaski nañu jot seen payoor ndaxte dañoo dem korité te amuñu payoor waa université numérique ak waa ANPEJ balaay balaay tabaski nañu jot seen payoor ndaxte dañoo korité jënduñu soble jënduñu jënduñu pombiteer te dañoo bëgg julli bii di ñëw ñu jënd buum jënd xar jënd soble jënd pombiteer jënd yére ñu julli julli bu desans julli en famille loolu la ñuy ñaan xam nañ ne métti na les attentes sont immenses waaye loolu la ñuy sàkku ci gouvernement bi euh, waaye itam lii day rek wan ne urgence bi nga xam ne moom la ñu war a changer yenn directeurs yi urgence yi ñu war a changer ñi nekk ci bopp FERA urgence yi ñu war a changer ñi ñi nekk ci bopp UVS urgence yi ñu war a changer ñi bokk ñi nekk ci bopp ANPEJ ndaxte xanaa yow boo amee ginaar sax nga gis ko mu yeewu tey maanaam sawarul di nga ñëw ne ginaar lu tax sawaro nañu waxante dëgg kan moo fi am ginaar nga gis ko mu yeewu suba teel mu bokkatu te doo ñëw laaj ko ginaar lu tax ngay bokkati yow ñu dénk la ay nit nga nekk ci service ay nit nekk ci ay nekk ci service do doomu aadama ñu nekk dix mois sans salaire quatre mois trois mois sans salaire ñuy kaas seen journalier AGS ñëwoon nemmeeku indi ay saafara tuuboo say bàkkaar nga naan da ngay da ngay coupe da ngay tiital ah da ngay dàqe donc y a urgence xam nañ nag ne président Diomaye euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre Ousmane Sonko waxoon nañ ne ñoom bu ñu leen falee li ñuy def bokk na si yenn directeurs yi dañ koy def appel d'offre ngir mu bañ a nekk ay directeurs yaa ma neex dëgg la loolu dégg nañ ko waaye yenn yi moom nañ ko baral ndaxte feek directeur yooyu soppeekuñu pratique yi day daal di continuer fekk directeur yooyu changé wuñ leen directeur yi fi nekkoon gëmuñu ne yi ci ëpp bokk dinañ jub dinañ jubal dinañ jubbanti or FERA dafa soxla jub jubal jubbanti ANPEJ dafa soxla jub jubal jubbanti université numérique Cheikh Hamidou dafa soxla jub jubal jubbanti waaye itam inspection du travail ministère du travail liggéeykat yi ba ci yenn liggéeykat yi nekk ci yenn organe de presse yi man maa leen koy waxal dañoo soxla jub jubal jubbanti ah, ndaxte nekk caméraman ñu lay fay soixante quinze mille soixante mille par mois du ñëpp mais dëgg du yoon noot muy dox day jeex moo tax na ñëpp génnee seen cahier de doléance waaye itam ana syndicat yi ani centrale syndicale yi te ñu ngi jëm ci premier mai fii ak fukki fan fi ak semaine premier mai ana centrale syndicale yi ñuy seetaan ay liggéeykat toog dix mois sans salaire ana central syndicale ak syndicat yi yuy seetaan journalier six ans waaye yéen AGS six ans la ñu wax am na ay journalier quinze ans vingt ans samay moromu bàyyi bi ñu commencé liggéey ba léegi ñu ngi waaj a à la retraité di vingt ans de journalier ngeen foog ne loolu yoon la day jeex rong ñu baadoole di siim cëri buur nga koy def journalier di ko def prestataire di ko jox xawma di ko yekkale ay intérim dafay jeex tey donc lii daal euh, laa amoon euh, li may wax lii moo tax ñu woote conférence de presse bi waa AGS nag ah ñoom ñooy xool nuñ ko bëggee dinañ leen siwal nag ba ñu siw ñun bëgguñu xeex ñii ngeen dàq defuñu dara lu dul ñëw seet si seen député seeti député nag du délit du crime yéen nag waa AGS yéenay saafara affaire bi si jàmm ak salaam jëlaat leen ne da ngeen juumoon ndaxte nit moom day juum ba pare dootuñu nekk ci journalier ba pare du ñu dem ci intérim bu fekkee da ngeen di wéy ci dàq bi ak ci intérim rek yooyu dinañ leen defal publicité boo xam ne gratuitement nag laaj ñu leen dërëm ndaxte dinañ ñëw buntu age si jàmm ak salaam dinañ déposé lettre préfecture bu Ndakaaru ndaxte nag lii ngeen def defu leen ko liggéeykat yi assemblée nationale ngeen tooñ ndaxte assemblée nationale du jaaykatu drogue du defkatu faux billet ba ku fa dem seeti député ñu ne def nga délit def nga crime ñu lay dàq man de duma ko nangu député bu nangu ñu koy seeti pour tiis ko jafe-jafe askan wi ñuy dàq askan woowu yaa xam waaye man duma toog seetaan ñuy toroxal assemblée nationale. moo tax man bokk naa ci ñu yàqamti ñu woote def ay élections assemblée nationale bi soppeeku ngir ñu am assemblée nationale xar kanam. assemblée nationale bu bees tàkk boo xam ne day nekk assemblée nationale askan wi et non assemblée nationale sukkaru koor